Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Dakar ne dort pas en direct du Grand Théâtre National. Mesdames, Messieurs, vous savez très bien c'est quoi qui nous réunit ici Euh, ce soir, c'est bien sûr l'anniversaire de Pape Diouf, le grand bégué avec Pape Diouf et la génération consciente. Ce sera en live, ce sera dans Alors justement, pour faire plaisir à nos très chers téléspectateurs, nous avons fait le déplacement avec les équipes de Dakar. Ne dors pas, nous sommes en direct du Grand Théâtre National Retenez tout simplement que vous aurez un grand spectacle tout à l'heure, hormis Pape Diouf et la génération consciente qui vont faire le buzz ce soir ici au Grand Théâtre National. Pape Ndiaye Chopet rejoindra euh, le, grand B, le Grand Théâtre National. De son vrai nom, l'équipe de Gelongal, les garçons seront aussi parmi nous en direct. Fatah sera aussi avec nous, de son vrai nom, euh, euh et puis le groupe Da aussi, Aïda Samb et puis Viviane. tous pour vous faire vivre des moments de plaisir avec le grand béguet. Mais quand même, c'est le plateau de Dakar ne dort pas. Les équipes de Dakar ne dort pas ne seront pas en reste du tout. Alors nous serons en de Bessel Bass qui sera en direct de Castor pour nous. Nous irons aussi à Toubab Dialaw dinañu ànd ak ñaatam ba ñaatam ba demal ñu Wakam gannaaw foofu tam daañu dem foofu nga xam ne moom moo di ca Diourbel ndaxte vacances yaa ngi dugg namm ngeen kasak dinañ leen indil kasak indil leen adak cosaan ngeen gis li nga xam ne moom moo di kasak daañu àndandoog waa ASC Magadan ci seen sabar gi nga xam ni moom la ñu doon organiser daañu demit fa nga xam ne moom moo di théâtre national Daniel Sorano nous sommes au grand théâtre mais nous irons aussi au théâtre national Daniel Sorano ak suñu mbokk séeréer yi ndaxte suñu mbokk séeréer yu ana professe yi kat dafa am yoo xam ne moom lañ doon def foofu affaire séeréer bu neex boo xam ne am na caxagunu séeréer boo xam ne di ngeen ko gis ci kanam tuuti Gueule ce sera pour nous au Yeungoulène et puis nous irons aussi à Kolda et nous serons aussi à Guédiawaye et puis à Bourkhou alors Bourkhou c'est sur la route de Mbour ce sera tout à l'heure en attendant la liaison directe va être établie à l'instant nous allons être en compagnie de Bessel Bass ma nga nekk Castor maa ngi lay nuyu foofa ca Castor merci beaucoup asalaamaaleykum Boubacar maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di la jaajëfal lu bare bare di jaajëfal nag équipe dakaar ne dort pas Boubacar Diallo tey dafa am loo xam ne moom moo xew Boubacar ñoo ngi fii ci Castor kooku nag di nga xamante ne mooy suñu collègue suñu xarit suñu mag muy ngóone moom nag waa koñam ñoo organisé tànn béer bu rëy a rëy Boubacar dama lay woon dara kaay topp ma lu bees amul fenn demal demal xoolal kii Boubacar Diallo lii musul am ci Dakar no door pa xoolal ñoo ko doxalee. waaw xoolal Boubacar besal fi laa ko def parce que sama sœur la ngoone invité woon ma nag ma ñëw tey def spécial ak besal euh, Castor na door pa ba tax na besal yow ko bëgg. yow e man foo ma def. e Boubacar li ne xoolal ma dem feneen besal nekk fii day gën a neex. merci Boubacar donc kooku moo nekkoon Amina toujours égale elle-même bu ñëwee rek dafay daal di neexal ba mu neex Boubacar ñu bàyyi gars yi daal di tëgg ñu fecc ba mu neex. des na si yow ñun yow la ñuy àndandool ñoo ngi lay seetaan en direct merci beaucoup Bessel Bass kon nag waa Castor ku ayewal sa moomee waa Castor daf leen mu neex. ginnaaw buñ la woowee rek euh, won la li nga xamante ne moom mooy ambiance ñu ngi fi nag ak ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo organiser sabar gi muy rek euh, salon Wafa ba li ñuy def rekk mooy ñu ànd ak hôtesse yu yaañ yi yéen ñi nga xamante ne yéen a organiser tey tàdd béer bi Dakar na dort pas daal di leen wuy si. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan si ñu ñu wuy si di kontaan si ñëpp kontaan nañ si ñëpp ñu tuddee daal ngoone mi ñu may Dakar ne dort pas yow lu la teree nelaw. ku may teree nelaw xanaa sama borom kër di kontaan si moom xam ne bu dul woon moom tey du ma yegg si fii comme ni ko Fatou Seen waxee nag ndax fànk na wax ji ba pare. di gërëm ñi nga xamante ne ñoo def participation ci sabar bi ndax bu ñu limee rek juum kontaan nañ trop si bés bi rawatina Ngone kontaan si yow Bessél ndax danga maa neex di Boubacar Diallo ñu ngi lay yónnee ca xargun bi dégg nga maa ngi koy xaar. grand bi mooy raykatu mbóot dëgg dëgg dëgg salal yow jaay ko rek da nga door pa jaay suñu lool ñu waa saloo di leen bëggee yéen waa TFM di kontaan ci suñu tata Ngoné ndax li yëpp moo ma di gërëm tam suñu patron moo ñu jàngal métier bi di ko gërëm di ko sant di gërëm suñu tata yu baax yi fi teew yëpp ndax xam nga ne bàyyi salal ñaw teewal ñu kontaan nañ vraiment ñu leen di gërëm di ñaan Boubacar Diallo dama dafa ma caxgun bu baax caxgun ñu nekkoon foofa nga xam ne moom moo di ca Castor àndoon ak ki nga xam ne moom moo di Bessel Basse tey nag bu spécial la ñu koy def boo xam ne rek dafay bàyyeekoo fii ci Grand Théâtre euh, Grand Théâtre bi nag euh, Grand Théâtre National tey ngeen xam ni Pape Diouf ak Génération Consciente ñoom ñoo fi nekk di def li nga xam ne moom moo di seen grand bégué